fekkete tal ko góorandooy daal li moo di nar naa neex boo bëggee dégg ndax kii lamsaar la mujj moom batis mii fils de max la fi mujj daal te kii waa lamsaar la xam nga fils de Sadio euh, Sadio moom booy saajo moom foo ko fekk yaram waa ngay tàng te dégg naa mbër mu man MMA la borom lamsaar maa ngi lay ziar. man waa kër waa Sine Tour yi. billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani di dolli santaat yàlla rek. Mhm. di julliwaat ci yonent bi. sallallahu alayhi di sant suñu ñaari waajur. Mhm. di sant sama nday nag sama sëriñ. Mhm. di sant sama yaay sama sëriñ. di ñaan yàlla yàlla yokk leeram. yal na yàlla guddal fanam. sama yaay sama sëriñ maa ngi koy ñaanal yal yàlla guddal fanam. di ñaanal sama papa yàlla yërëm ko te xaaree ko àjjana. ci barke Seydina Mohamed. di nuyu journaliste yëpp. di nuyu grand di nuyu àdduna yëpp. di nuyu képp ku bëgg booy Sadio. képp kuy bëggee booy Sadio. maa ngi lay nuyu. di nuyu sama boy yi ma àndal. ku si mel ni Bour Géwél. Omar Sonko Thiago. di nuyu Mbaye Donde. Modou. mafia ku koy duxay bi waa Tim Lora. dawalkatu Jakarta yi. dawalkatu deux yi. mécaniciens yi ñoom landing. waa Thiaw sa xiir waa Areba. waa Fass Mbao Daaru Salaam waa Jàmmagën. di nuyu sama grand Siteu. di nuyu sama grand Cheikh Sarr borom seen TV. di nuyu Sénégal yëpp. xam di nuyu Sénégal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sama grand xaadim di nuyu sama grand maa ngi wax ci kaw na loxo yu jug tuuti. loxo yu jug na kay maa ngi wax ci kaw wala jox ma ma téel la micro waaw kay. nuyu sama grand xaadim Thiaw borom caw business. di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu sama waa dëkk. di nuyu sama waa dëkk waa saajo waa Taïf Batista su may wax dangay ngay noppi ba ma pare ah. su may wax da ngay amal yar. di nuyu sama waa dëkk di nuyu waa saajo waa Jolof di nuyu Jolof Jolof yëpp ak lu Jolof gi yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Taïf waa Bayla waa Gassane waa Thiel xam nga bàyyiwuma kenn àdduna yëpp di nuyu waa kawlax tamit di nuyu waa Kaolack di nuyu sama waa dëkku yaay waa Diouroup Diarekh Ndioudax di nuyu waa Diofior Sine Boyar waa jilaas gars yi oh, du ngeen ñu may tuuti ah. ñu may tuuti may leen ñu tuuti waay waaw di nuyu àdduna yëpp dama bëgg li may wax gars yi di ko dégg ko waaw di nuyu ñëpp ku ma limul rek dama juum di nuyu Sénégal yëpp di nuyu sama adversaire di nuyu sama grand ma sekk xam nga di nuyu les jeunes amateurs yëpp di nuyu sama père Khadim borom borom géejawaay di nuyu grand góorandooy di nuyu ñëpp di nuyu tonton El Hadj bàyyiwuma kenn di nuyu sama yaay Margo Dia xam nga di nuyu Petit Khoule Doudou Khoule Faa Khoule ak jabaram waaw Faati ak jabaru Mor Khoule di nuyu Paa Khoule di ko wax ne ko combat bi terrain laa si bëgg ah. incha allahu rabbi Père Khoule terrain laa bëgg ci combat bi ak mat daan indi la victoire bi ak ay béy yu bari am léegi joxal sa waay wala teel teel ma xam nga xam ne bëgg ñuy daam parce que ci la ñuy wecce moo tax. garaaw moom Ndiol la dégg. bi batis bi di sant waa Kaolack di sant waa Espagne. Uh-huh. waaw di sant fans club Batista bi. di sant waa Ibiza waa Espagne. waaw di sant waa Dakar ga bu baax su mel ne ñoom Demonte ñoom Fall Amical ñoom Neeleer waaw di sant sama papa bu baax di santaat sama papa di bu baax di sant sama yaay bu baax ji waaw kii. da waxoon naw ndax moom daa bëgg yaayam waaw moo tax moom jàmbaar la quoi loolu laa ko bëggee maa ngi sant ñëpp waaw dafa fu mu moom fu mu wax day wax bëgg seen yaay même nu mu bëggee yaayam ak ak koy wax contentement bu mu si àndal waaw moo tax ma koy ñaanal yaayam yàlla gudd fan am am wér sa bak sëñ Fallou mais li muy wax euh, léegi si yow da ngaa tiit ak yooyu moom laa man moom moom ñam na yow da nga ne si fils de Massa laa mujjee si moom laa mujjee waaw daan na ko grand fii loolu yàggul waaw kii damay ñëw leeralaat leen laay wax di ko wax gars yi xamuñu ma gars yi dañ maa umbule barki maam Serap Fall lañ ma lamb damaa umbule lamb xamuñ kuy Batista numéro 2. mais ñoom Bougar ñii gars yi nii dama topp si mbabar xam nañu bu baax. c'est incompréhensible waaw léegi kii damaa ñaan yàlla ngir yàlla kii su ma ko daanee si vite fait nañ ma jox samay borom. yaa ngi comprendre. Ah, da nga yaakaar da nga koy daan ah, est-ce que mbapat ma ak arène ma bu neexee yàlla suñu borom. Ah, kii non moom xam na loolu baax kii xam na ne maa ko dàq bëre maa ko bu doole xam na moom lool leer na ko li may wax rek leen laay ñaan yàlla kii su ma ko tracé vite fait samay morom nañ ma jël parce que may essence yi doy na kii Fils de Max moo ko gën a tàng Fils Max moo jógee moo ko gën a dis aller retour moom xam na loolu ba ma daanee Fils de Max balaa doo bugar moo mën a mbër daan nga ko naqaree daan mi ngi nii waaw moom laa si teg bu soobee yàlla non moom sama waay la kii man ko bëgg moom moo mooy loolu moom nee na bëgg ah, waaw dama ko waaw te moom aussi dafa baax quoi kon su ma la déggee yaa ko dàq yaa nga lépp làmb rek ñun moom bu dul làmb ñun ay doomu ndey du ñaaw xaw ma kan mais man du ñaawee man aana du neex ba ma dajeeg moom saaga ko wala ma ne ko lii du ma du ma ko dépassé waaw la làmb la quoi bu ñu si biir géew bi làmb la ah. kii bu ñu jógee ne nga xam ne nee naa ko bi dugg Kaolack dama tàggu ah. Sadio Babacar booy dugg Kaolack dama tàggu Babacar la tudd mi ngi nii 93 la ma ngeen amoon 8 ans 94 loolu amul sens. ah ma nga déglu 94 kii 8 ans la ma magee. lan ñu boole. waay 8 ans la ma magee. mi ngi nii man ma ko magee laa ko mënee. man 2001 laa judd. Eh, yàlla moo war di mbër. déggoo lu ma la. gars yi nañ ma bu baax. wuy ma. waaw. jarum kii 40 yaa ngi fi. yow noppi rek comme comme bàyyi bàyyi bàyyi ñu waxtaan. nga ne. barki salaatul fatiha su ma defee justement yàlla moo war a di mbër 2001 laa judd. kii moom nee na ba muy ñëw Kaolack maa ngi nekk xale bu ndaw moom mi ngi nekk xale man ma nekk mag di bëri ma si mbapat yi te moom magee na ma huit ans est-ce que comprendre la ma magee mi ngi nii taxaw du ko weddi mais Garab si kaw lay fekkente li ma leen wax rek samay adversaire nañ xaar kii su ma ko tracé ba babs ah. ñëwal gàlle ma wax la samay adversaire ñu ma war a bëri mais du kii yow la bokk Eumeu maam la ngeen bokk sama maam ak papam Assou Ngom. ak papa Eumeu Sène. ñoo bokkul ndey ak baay Assane Ngom ñoo bokkul ndey ak baay. sama maam Assou Ngom. mooy mooy taawu Samba Xoyaan. sama maam bu jigéen mooy taawu Assou Ngom rakkam moo jur Eumeu Sène. est-ce que comprendre lamb ñun dañoo war a ñëw def lu ñu war ñun pire lañ dëkk kii maa koy dalal. non Eumeu Sène ndur Eumeu Sène moom mooy loolu maa ko tax gars yi gars yi dañ daan booy ñaaw quoi. Ah. mais mais anyway ah. mais li li ma bëgg mu leer mooy. sama baaba dafa maa yónni yaa xam te mais c'est incomprendre maa ñaan dama leen wax rek ngir yàlla war suuf bu ma ko ay moo ko pare. jox ko a téye def man de Sadio nag américain la de. non. man de ku fi yoram morso. daa sa loxo yi sax jot fii làmb ji amul mag ak xale. kii bu mayee sens di am man maa ko may sens. kii ñaari combat la bëre Dakar Dakar fii ñaari combat la fi bëre mook bati mook fils de max ak mook kii euh, ab Ibra Ngaabu xaw ma man ñaari combat am yooyu laa seetaan ñaari combat am yooyu laa fi gis kii boo duggee si internet bi tapé ay combat am tapé samay combat xamuñu ko kii man maa ko may sens au contraire man maa waroon a bëreeg samay morom bëreewuma ak ñoom ma ñëw bëreeg moom billaahi wallaahi tallaahi yàlla moo ma tiim du question de may ay morom lañ garab ci kaw lay fekkante mais bu fekkee waxu maysance sens day wax ay waxu bëreeg morom kon man waruma woon bëreeg moom gaal gi dañoo bëri mu daan ma te bi may daan da daw maa ko jàpp di ko xëcc ci biir géew bi juum te ku juumul doo daan non kii bu ne moom ëpp doole day wax kii mënumaa ëpp doole man deux trois la moom mu doon quatre vingt centimètres mënumaa ëpp doole munul nekk man 2 mètres 3 laa moom mu nekk 80 centimètres kon kii mënumaa ëpp doole kii mënul munu kii kii fan la kii bu taxawee kii bu ñu bu fekkoon dañuy jënd mbër tey. bu fekkoon dañuy jënd mbër. lii lii kii la bu dañuy bu fekkoon dañuy jënd mbër bu fekkoon dañuy jënd mbër léegi bu fekkoon tey dafa am ay agent yu ñëw Sénégal di jënd mbër di jënd quoi yóbbu ci club bi man la ñuy waxaale bàyyi ko barke alxuraan laa la lépp ci lépp non kii bu ne moo ma dàq bëre na dem seetaani samay combat te ñëw daan mbër taxul nga mën ko waaye Eumeu Sène man aw ma maamu mbër ay maamu wàlliwu laa am man ay maamu wàlliwu laa am man waa kër sëñ Mamar Sarr waa kër sëñ du maam maam Duudu Sarr man soxna Fatou Mates taw Seydi Hadji Malick mooy sama maam déggoo ma de sëñ Muniru Sarr maam Mansour saar mam Doudou saar ñoo samay maam man ay maamu wàlliwu laa man aw ma maamu mbër man la yàlla nattoo mbër te dama koy nangu yàlla moo ne inna ahadakum yu jumaw xalquhu fii batnihi mi arba'iina yawman nutfa lii sama destin la yàlla moo ko bind ci àdduna dama ciy jaar ala kulli aal yàlla nañu su mayur salu ilayhi malaku fayn faxu fiihi ruuxa wa yumaru bi arba'i kalimatin bi kat bi risqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw saidun li xadisa bu suñu borom wàccee ci yonent bi ñun yàllaa ñu nattoo làmb làmb mooy suñu nattu dañ koy nangu déggoo ma damay man bu may wax damay wax lu ma xam du ma làmbatu li may wax moom maamu mbër la am man maamu wàlliw laa am te mbër buñ ko ñaanalul du daan kon man samay maam dañ maa ñaanal kii jegewul sax fu ñuy daanee te nag naa la conseil benn conseil nga bàyyi waat yaag sa papa bàyyi leen di taxaw di waat dañ lay nangam bàyyi leen loolu loolu baaxul lii fo la rek soo ma daanee da nga maa war daan moo tax nga daan ma mais ay waat du tax nga daan ma ay waat ay waat taxul nga daan ma déggoo ma de buñ duggee si biir géew bi yow dama lay duma doo duma eh, laa la wax tapen nga eh Batista wuy ma. yow kii yow Tampet la la wax. fii dara du am Babacar. waaye yow doo ma bàyyi dara du am. fii dara du am. kii du wax a wax ba suba man man dara du am lam wala du eh, neex ma ne yow tappen wax tappen nga duma la dal la billahi doo kii lañ ko kii xel ma ngi jin kii maa ko ñëw xeex fuuf non yow tappen nga bosu la bosu la doon def 2000 2012 kañ nga doon ci la demee keroog si jiw Saalum Dieng kañ nga fa doon def dama doon def ay gala man ak militaire ci box moo fi bàyyi. yow tapé France laa waroon dem sama combat ak yow moo fi bàyyi. da nga war a dem France pour fu mu bëree boo da nga war a dem France so combat ak yow booy dem booy dem booy dem nga yóbbaale sa défaite boo demee ma nga xeex aller tour booy dem nga yóbbaale sa défaite boo demee jooy xeexu tapé lay xeex eh, booy dem booy dem booy dem nga yóbbaale sa oh, baax barke alxuraan kii arbitre kii da nga dem entraîné bàyyi sa naxe bi waa Kaolack arbitre bu nee prix dañ taal bis dañuy ñibbi waa Kaolack duñ ñëw te bu ñëwee tribune tribune déggoo jolof jolof yi nag maa ngi leen di woo yéen jolof jolof yi jolof jolof yi lamb ji seen lamb la jolof jolof yi jolof jolof yi maa ngi leen di woo yéen ñëpp jolof jolof yi maa ngi leen di woo mbay kaay téel ma micro yi nii ma wax non kii ma wax bu baax gars yi dégg ma ma woote téel ma micro yi nii. kii ñoo ànd ci lépp yow boo feccul duñ la fay. nga bàyyi xeesal jëlal lii na caméra tax waaw maa ngi woo grand Abdoulahat boroom Touba Belal grand Abdoulahat borom Touba Belal maa ngi koy woo ci kombaa bi bu baax sama mbag sama mbokkum dëkk di woo Cheikh Sarr Sen TV sama doom baay dee leen ko seetaan nag mu ngi jàllale lamb ji chaque jour nee naa leen boo amee buzz maa la may buzz Cheikh Sarr Sen TV mu ngi jàllale lamb ji chaque jour di woo Grand Nes Petersen maa ngi koy woo bu baax Xëcha business Thiaw Petersen Cheikh business Thiaw maa ngi koy woo borom Petersen di woo Papa Ndiaye borom États-Unis sama nijaay tonton Issa maa ngi koy woo Abdoul Karim borom Côte d'Ivoire Abuja Abuja maa ngi koy woo ci combat bu baax kilifa maa ngi koy woo bu baax a baax 5-5 France maa ngi lay woo ci combat bi di woo tam sama bàjjen Bakar Sarr yàlla na ko yàlla indiwaat si jàmm maa ngi koy woo ci combat bi grand Abdou Razak grand Gora Dërou maa ngi koy woo borom jàmm gën Marème Salon maa ngi koy woo Ahma Seck maa ngi koy woo bu baax ci combat bi di woo grand Ngumba Dërou Mas Koki Mansour chauffeur citerne Baba Baro borom États-Unis yaa ngi dégg di woo Petit Khoule di woo Modou Khoule père Khoule nag na ma may terrain ci combat bi loolu laa ci soxla waaw di woo jabaru Mor Khoule di woo Ndofène Fall gar ancien maire maire Diamaguène Sicap Mbao tonton Cheikh maa ngi koy woo grand Ndiaye cité Pasteur Malick Dione yaa ngi dégg Papa Makhtar Cissé père Ndiaye bijouterie grand Masek amateur Alenia maa ngi koy woo Mama Naar Mama Naar sama doom ndey maa ngi lay woo si combat bu baax di woo waa SMS boutique di woo waa marché Colobane yëpp grand Pape Gueye maa ngi koy woo maire Xaar père Ibrahima Mbaye bi waa dawalkatu sareet yi waa caw sa xiir Sénégal bàyyiwuma kenn nañu bàyyi ñu woo ñëpp parce que combat yi dafa métti dañuy indi ay diis cars ci stade bi booy bëgg ay billets ñii ñuy woo ñoo leen di jëndal billets yi nañ leen woo rek yàggul quoi yaa ngi dégg ñu ngi woo ñëpp daal képp kuy jàppale Boy Sadio jàppale ko ci ay cars ak ay billets yow bi nga taxawee fii ba léegi ñaqoo sa yow liggéeyoo di sant sama yaay nag sama yaay sama yaay maa ngi koy sant di gërëm sama yaay di sant sama yaay di ko ñaanal yàlla guddal fan sama sëriñ waaw Batista tàggut waaw man tubaab laa man moom maa ngi nii mooy mooy waaw woo ñëpp di woo waa Kaolack waaw di woo euh, Abdou Lahad Bundu Bigin di woo Zeus Xaarim Sall di woo ñëpp yaa ma ko doon demal ci li nga demoon doo doo man maa ngi woo ñëpp di woo waa Kaolack di woo sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo di ko wax na yokku biis yi quoi bii ñaar na defoon bii na def ñett uh-huh. si kàttanu yàlla ñu ñëw jaanale booy bi man sama ñi si naa leen bu jotee ku ke bu gars xamul lu ñu xew nañ na benn félicitation Batista dama koy daal même bu ñëwul lu xew kii mu gaaw mu daanu mu yéex mu daanu mooy tëj wax ji parce que combat bi loolu nii combat bu nar a neex la combat yi sax laay wax waaw Babacar avant tout ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu presse bi di vraiment waa Jëneet production yi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi si toog doon présenté léegi diggante Ameth ak Diam Terry ñuy ñaan seen journée boobu ñu jëm le 23 juillet yàlla suñu borom defal leen ci si totale di woo ak lu làmb yëpp ñu jàppale leen parce que ñoom suñu lañ bokk Jëneet production mooy amateurs yi amateurs yi mooy Jëneet production di woo amateurs yëpp nag le 23 juillet yaakaar naa ni bis bi na boppam mars bis bi jaay na boppam tey boo xoolee Batista 2 xool ki nga xam ne mooy Boy Sadio kenn du leen présenté ci lamb ñu nekk ay ñaari mbër yoo xam ne ku ci nekk ci gox bi ngay jógee maanaam boo jógee ñëpp topp la ñu nekk ay mbër aussi yoo xam ne ay mbëru amateur lañ kon journée bii mën naa wax ni ku dégg seen déclaration xam ni jaay na boppam gis nga léegi diggante Wassintor ak ki nga xamante ni mooy euh, yan bu diis ñuy woo nag sponsor yi ñëw dugal seen loxo di wax ni combat yu neex lañ leen montel gis nañ combat yi li ko dalee petit combat ba ci kaw ki nga xamante ni mooy euh, Petit Balla boole nañ ko ak ki nga xamante ni mooy euh, Cikiri bu écurie Grand Dakar muy combat bu doy war ñu jël boloo bu Louga boole ko ak ki nga xamante ni mooy Mbaye Tine Junior drapeau boobu nag ki nga xamante ni mooy mooy euh, Moustapha Diop maire Louga lañ ko jox muy nit ku baax moom la ñu jox drapeau bi di ko woo aussi ci bis bi mu jàpp ñu si jël ki nga xamante ni mooy Mame Balla numéro 2 bu école de lutte Pape Diop Bosson boole ko ak boîte vocal bu écrit Père Diaw mu nekk combat boo xam ne mooy combat spécial bi jël booy Baldé ki nga xam ne mooy surtout Fodé Doussouba boole ko ak ki nga xamante ni mooy Fat Fat di rakk ci Tigre ñu yaakaar ni foofu la ñuy ñu wàcc jël ki nga xam ne mooy abada bu écrit Soumbédioune boole ko ak ki nga xamante ni mooy euh, góor fit bu Grand Yoff booloo kon nag yaakaar naa amateurs yi bu ñu wootee yaakaar naa ñëpp dinañ ñëw ndax képp ku mus a woote ci làmb rek amateurs wu wuy si nañu ñu ngi wootee li ko dalee ci CNG le président Bira ba ci suuf ñu ngi woo mbër yi nekk en activité di jël nuyoo bi ak woote bi di ko teg si loxo Gris Bordeaux di woo Balla Gaye di woo Modou Lo di woo Eumeu seen di woo Ama Baldé di woo Boy Niang di woo Sa Thiès di woo ñëpp parce que tamit mbër yëpp teewal nañ leen ci seen ay bés kon ñun amateurs yi suñu wootee ñu ngi leen di xaar di woo monsieur le ministre Yankhoba Diattara di ko jiital ci woote bi ndax moom la fi yàlla teg mu jiite sport bi ñoo ngi koy woo di ko lancer message di ko xamal ni ko bis bi bisam la ñu ngi woo autorités yëpp di woo bonne volonté yi ñëw jàppale amateurs yi parce que dañu bëgg bu ñu jógee ci bis bi monter combat bu gën a mag bi kon nag encore une fois ñu ngi a amateurs yi nekk Sénégal di jërëjëfal aussi ñu nekk ci bi parce que waa diaspora bi aussi woo nañ ñu xamal ni ñu làmb ji ñun suñu làmb muy ñoom toldo muy ñi nekk ñëpp ñu ngi leen di woo encore une fois di wax amateurs yi bis bi bis la ñëpp bu kenn xaar kenn promotion bi ñu ngi koy def mu ngi wax léegi Cheikh Sarr muy nit ku baax xamal nañu promotion bi moom lépp lu mu bën dinañ ko def DJ Boubs aussi tamit dinañ ko seeti waxtaan ak moom mu jàpp ci publicité parce que amateurs yi bu ñu wootee yaakaar naa dara jomb leen si bis bi di waaj ay surprise nag le jour si di wax ni képp ku fi ñëw di nga gis spectacle di nga gis son di gis lumière te ñu ngi waaj ay innovation yu am solo ak ay décoration le jour bi parce que lamb aussi ku yokkul danga nga wàññi te amateurs yi ñëw nañ pour jëmale lamb mu jëm kanam.